Idrissa Seck mi nga xam ne. Mhm. Euh, jamono yi sonkoo euh, euh, lëloo ñu mhm. barricade ko. Mhm. Idrissa Seck jékki-jékki rek génn tey actualité bi. waaw ak léegi tekkaaralam ak pattaaralam keroog génn na def kii Touba nanguwul sax def. déclaration. ba pare dafa mel ne dafa sotti ndox mu sedd somnifère. waaw gaawam yëpp noppi. Lamine Ba génn na fi. waaw def déclaration xaw ko sànniwaale xeer. waaw mu leer la ne Idrissa Seck bu joxewul woon ay consigne gars yi dañu génn sànni ko xeet riposté waaye réew mi gis ni mu jékki-jékkee jóg ne pël noonu la newaatee mbëpp noppi ci contexte bi di bàyyi na yëfi déroulé loolu ban lecture nga ci am stratégie la si oui, euh, est-ce une stratégie <coughs> payante mhm. quels, en sont les tenants et les aboutissants nga que Idi si je doit il il doit faire changer à Idi. réellement qui amel politique. Idi donc c'est toujours. Mhm. peut-être ah, euh, Touré. ci fédération des cadres libéraux. moom la jox ko Macky Sall bi ah, loolu Idi la mu paree dem jox ko Babacar Diop. waaw euh, Idi moo ko nommé léegi. te xam nga Idi nag moom nag bu mag la du yàq mbopp. déedéet <laughs> dëgg la waaw léegi man ay affaire dama koy surveiller parce que Idi dafa am lu mu niroog Nicolas Sarkozy. Hmm, mooy propension à rebondir <laughs> non propension à rebondir. waaw mën nañu xëy ñëpp xalam leen. Hmm, hmm. ñu xëy jugaat waaw la yàgg na nag de du du deux mille cinq yi la commencé de loolu dafa yàgg ci idi waaw boo xoolee bi muy nekk directeur de cabinet il était très impopulaire. exactement waaw bi muy nekk directeur de cabinet il était très impopulaire. waaw waaw arrogance yooyu mais après bi mu génnee. Mhm. parce que li nga doon wax moo manqué ay Youssou Ndour wala Amadou Ba loolu na ci moom. dafa am facha waaw c'est un tribun. un grand communicateur. très cultivé très extrêmement cultivé. extrêmement cultivé xam-xam bi dafa Il utilise les arcanes de la communication dafa dafa voilà. Ah, il a le verbe facile. il sait il sait il sait arranger les foules. très bien Wa xam nga ñaan Napoléon moko doon wax. Mhm. il faut savoir quand il faut sortir de la peau du lion. Mhm. et quand pour pour entrer dans celle du mouton. te xool ñi nga wax non? <laughs> ñëpp. du non. Napoléon mi nga wax. waaw Sarko mi nga wax. waaw. ak éni bi nga wax ñoom ñëpp ñoo nuroo seen petite taille. waaw seen gàttaay. ñoom ñëpp ay ay non Messi nee na mooy Messi. <laughs> yokk ci Messi. Ah, nee fa xam fi xaar bal bi. Ah, ah, wala. léegi parce que gis nga moom laa doon sànq gis nga pëccoxoo bii. ba woon naa la sànq Rimbo. Mhm. ce dérèglement généraliser là. Mhm. est que du lu mag yi organisé après yàlla parce que man jàpp mooy tam président cuune la. président li muy xam xaw ma ko. yow xamoo ko. voilà. Mhm. te celui qui détient l' information détient le pouvoir. absolument moom dafay am capacité anticipation boo dul am. parce que moom moo xam loo xamut. Mhm. tout à fait. voilà tout ku la ne président mën na nekk cuune nag. Mhm. kooku xëy na xamul lu muy wax. dina yenn saa yi président nekk cuune. yenn saa yi dafay am. tout à fait. mais mais bëriwut. du noonu. li lépp mën na am mu anticiper ko xam ne nii lay demee parce que mosoon na ko wax. su ma tànnee candidat. parti bi dafay tas xaw ma genre état bi gën du voilà il avait assez de renseignement pour xam ne lii lay demee. léegi lii bett ko xam nañu lu la bett moo la mën. léegi Macky lii bett ko kon lii mën na ko bañ a mën waaw waaw. ba léegi Idy nag. ci moment boobu ñu génnee ñëw ñëpp ci gouvernement bi moom moo fi nekk bu ko gaay fàtte itam. Mm-hmm. wala ma jox la benn anecdote mm-hmm. bi ñuy xeex ak Sonko ñoom li ci waa kër Idrissa Seck yi def ñeen ñi defuñ ko. Mm-hmm. waaw waaye dañuy waxante dëgg ci réseaux sociaux yi. soo ñoom copain Babacar Mar ak ñooñu ñoom sa pare ñoom Babacar Mar parce que ñoom ñoo ñoo ñoom waay euh, ñoom dafa mel ni Macky Sall benn moment réew mi rek koy soutenir sax mm-hmm, bu ñu waxante dëgg rek quoi parce que ñun public SN loolu ñu fi teg xam nga kenn moomuñu sentiratuñu affaire gisatoo kenn affaire moom moom moom dañoo daw gaa yi nga daw ay saleeg ay mbuur ak nekk noonu waa réew mi ñoo taxaw xeex xeex bi wala voilà léegi nag comme ni ma la waxee Idy ak Macky mm-hmm. nit ñu bëri dañuy fàtte ci histoire mm-hmm. mag ak rakk lañ

mun na créer pëccaxoo bi yëpp. Mm. fekk am na benn agenda parallèle bu muy liggéey. Ah, ah, ah, waaw en douce. en douce quoi benn agenda parallèle. loolu c' possible. non bu intégrer loolu tamit. waaw intégrer ko quoi loolu. c' voilà.